mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey jii ñu fas yéene ànd ak yéen ci xew-xew bu mag di bésub ñaan ak euh, jàngum alxuraan ñu di ko amal at mu jot fii ci Ndogal Dieng Ndogal Dieng nag di ab dëkk cosaan dëkk bu léppam alxuraan dëkk bi mi ngi nekk ci diwaanu cees departement bu Tivaouane ci commune bu Meouane ni ñu ko baaxoo ni ma leen ko jinde léegi at mu jot fii ñu di fi amal bëccëgum ñaan waaye itam njàngum alxuraan fii ci Ndogal Dieng ma leen di fàttali ni dëkk la bu seen lépp dañu ko jël jox ko alxuraan firnde lii di tey boo dikkee fii ci Ndogal Dieng dinga fi fekk daara ju méngoo ak jamono di nga fi fekk jumaa ju mag ak genn kër goo xam ne dañu ko jagleel Serigne Touba Cheikhoul Khadim muy kër sëriñ Touba gi nekk fii ci Ndogal Dieng barab yi ma leen limal yépp nag fàttali leen ne ki ko fi def mooy jëmm ji di Serigne Mbacke Dieng doomi dëkk bi. bëgg lool Ndogal Dieng itteem yépp mooy lu suqali Ndogal Dieng jumaa jiit ñu ko dalloo fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2015 mu doon ay jumtuwaay yu ni ma leen ko waxe woon sànq Serigne Mbacke jëng moo ko fi taxawal ci doole bopp ah, yàlla dogal seen bunt ci Sëñ Tuubaa mooy Cheikh Issa ñëpp xam li nag moom ah, loola mooy dund ba egsi ci ñun ñii ak ñoom moo waral bis bi saa yoo xewee rek ñun ñëpp ñu maase jóg ànd ak pas-pas ak yéene li bi sori sori nu bàyyi suñu ite ñëw ànd ko ak ñoom loolu démb woon du tey loolu lu ñu soo suñu ko woon da nga fekkoon di ko fedd li dañuy dañuy ñaan nag mu yàgg ci barke sëriñ bi waaw kii toog nii sañ Cheikh jon sama rakk la ñoo bokk sëñ Bakki ak ñoo bokk lépp ak njaboot gi nga xam ne ñoom la àndal di di suñu njabootu bopp mm. kii di sëñ soxna bi jën sama doom la ak sëñ gañ ah, fii nag moom daa bokk ci yu mag yi dama leen ko waxee rek waaw mm-hmm. ah, jëm ji fi nekkoon di bàyyi Basiru Jeng na ko loolu mooy dox ba egg ñoom ñii loolu war na mu duppee sëriñ Mbàkke mii sëriñ Mbàkke sunu waajur yàlla dogal mu féetale ko man may jëwriñam ci kër gi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen sant tey am rafet njort ak yaakaar ju ma sëkk ci li ñu dajale fii ñu wax li addis wax ci jokk ak bokk ak dundal ko am bis bu dañ ko tànn di ci jàng téere bi nga xam ne mooy gën ji téere la waykat ba noon maa baxda aayaatihi aqun li mu tabbihin wal xaqu maa baxdahu ilal abatilu aaya alxuraan yi bu ñëwee beneen ngëneel ñëwatul amul beneen ngëneel bu ñuy mën a tegtaloo di ko dendaleeg moom ndaraka lu lool ay neen la njaboot gi ñu fi bàyyi woon ñiy woote di jàng alxuraan di dundal la fi mag ñi nekkan ak suñ borom li mu wax ci jokk bokk bokk yëpp di fi ñiy saapu ante xarit yi ak ñi mu yaakaar ñu tàggatan njaboot gi ci loolee ñu ñëw di tari la nga xam ne moom lañ leen tàggatoon kon mel nañ daal sas woon leen bàyyoon booyul eh, kon nag sëriñ bi ci ak mbetteel ñi ngi sant yàlla di sant bu baax a baax ndax gannaaw dañoo nekk ci mujjug jamono jeexital yi ak tegtal yi yëpp addis waxoon na ko te ni ngi ci toll te gu jëful jëm fii da nga jëf jëm fee te nit ki moom la mu bëgg rek ca lay yëngu bu suñu boroom di wax ci alxuraan naa kullu isbin bi ma la dayim fariwoona kon nag ñi bëgg alxuraan ca loola rek la ñuy yëngu mooy jeexital bu mel nii nit ki nag li mu am ci alalam mooy lii borom durée yin moo ko waxan daf ne woon walil fata min maalihi maa qaddamat yaddaahu xabla mawti laa maxtana nit ki li am ci alalam mooy lam ci jiital ca lu baax waaye du caagin lam yor da ko woomloo ngir loolu ci ay loxo la jóge te bu yàggee mën naa génn ci loxo yi dem ci yeneen loxo waaye lii mu dajale di ci bégal bokk yi di ci tabax ay jumaa di ci jàngale alxuraan wut ay daara di leen tàggat gàddu leen seen dund loola doom du ko donn ndey du ko donn bàyyi du ko donn soxru du ko donn soxru la maanaam ndàmb la magasin la boo xam ne bii lu ñuy waxtaane ëllëg la te daf ne almar u yu hadisu baxadoo fokkun hadisan asan li man waxaa nit ki dañ koy waxtaane ginnaawam na fexe ba doon waxtaan wu rafet ca ñu koy dégg mu deeleete ni min kulli ma naa la fataa xat nit woo wal mar u yàpp lépp nit di am am naa ko waaye nag dana des ci julli bi taggu rafet kon nag sëriñ yow ak mbokk yi ak sëriñ yi ñu ngi leen di ndokkeel te di leen siyaara tey ñaanal yàlla jëf ji nekk yàlla suñu borom yàlla bu ngeen ci gis seen bopp te itam la Luqmaanu Hakim waxoon doomam ja ba mu koy dénk daf ko ne mel ni kuy bind ci ndox lépp loo defar ci lu baax dee ko fàtte ko waxee rek ñëw giñ fi ñëw ci dogale suñu boroom sama borom daf ñu am ci mbégte lool. ngir dëkk bi ku xam cosaanam ba nëga ni nga xëy dëkku bu wàccuwaay la ci lislaam jàng ak jàngale ak liggéey moom la ko mag ñi sose woon nekk ko fi ba meññi leen bàyyi leen fi ñu woy ca loola tax na boo jubee dëkk bi te lislaam ñor la mbaag taalibe sa xol dina sedd rawatina nag njaboot gi ñu fi bàyyi taxawaay biñ fi am taxawal fi lislaam ndax bépp dëkkub jullit boo jublu jàkkaarloog juma ak soroor yi di nga xay lislaam ñor na leen ak fàgguteef yañ ko defee ak barab bi ni mu làqoo kon xam nga danga xam ni itteel na leen ndax jamonoy léegi ji ku lislaam yitteelut alal ju nii nga di ko fab di ko def ci àll bu mel nii di nga am feneen foo ko def ngir mu jural leen a ëllëg waaye nag dañ leen a yar ci lislaam tërbiyee leen bañ xam lam leen di jural ëllëg ndax foo ko mën a def njariñ loo fa mën a am tono ba nga fay am adduna la yem bii nag njariñ li ñu fi am ak tono bi ñu fi am adduna ak àllaaxira lay doon te loolu la mag ñi doon liggéey kon boobu mbégte lañ ci njëkkaam bi ci des it mooy suñ diggante ak sëñ Sohaybu Jenn mi nga wax nga xam yàlla dogal na dun ñaar kenn lañ mhm. ca bañi ndaw ba léegi lu mu dugg rek war nañ caa dugg ñetteel bi mooy sëriñ mi ñu fi fekk mhm. ak ay njabootam mhm. nga xam yàlla daa dogal ñu daje woon ci tool ba di liggéeyal yàlla ñu xaman ko mu doonoon jàmbaar ñu ànd di xëy di gont di wàcc di fanaan mus sa yemale sëñ Mbàkke jenn ak dara ba tax na loola sant nañ ci yàlla ndax jaar gi ñu ànd ak moom jaar ko fa bàyyi woon na fi ay magam fekk leen fi bàyyi fi ay baayam bàyyi fi ay rakkam waaye bi mu dikkee mel na ni ngërëmul yàlla li ci sëñ Baara Jeen di wax moo am boo ko xisee jëf mënatoo koo yàq te lépp loolu ci sa borom faye nga di gis ci àdduna rek ak am la nga la ko taxoon a jóg du fii kon loolu wone na ko ndax ma nga doon xëyal yàlla suñu borom di ko gontal bàyyeen fi ay bokkam jàmbaar lañ ñu nekkan ci daara ñoom itam di xëyal seen bopp waaye bi mu delsee ba am payig sëñ Mbàkke sant na yàlla ñoom ñu ko yebaloon mu demit bi mu dikkee ñoom sant nañ yàlla ci yebal gi ñu ko yebaloon ndax xam naa yéene mu romb na fii lépp lu mu yéene mbaa yéene ko ci dëkk bi yàlla na sa jàppandal ko muy xiiwal yoo xay nañ ko bëggee daañu ko ne amee waaye mënu daal bëgg nañ ci yooyu ma la wax bëgg nañ ci barab bi bëgg nañ ci julleekaay bi bëgg ci kër sëñ Tuubaa gi bëgg ci mbooloo mi fii daje ak waa dëkk bi yëpp dëkk yu baree bari ak ñi ci dëkk yooyu war nañ leen a roy ci loolu noo ngi ñaan ci barkeb Seex Isaa saa boroom dëgëral seen taxawaay yokk seen wërsëg barkeel seenu njaboot bi barakati Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf barkeb Seex Isaa gannaaw bañ sante kilifa yi yëpp sëriñ mu dana ci ñëw dañuy sant waa dëkk bi nga xam ni ñoom la sunu borom jaarale daara ji ne ci biir dëkk bi ñu ñu nekk dongo yi ci biir dëkk bi ci waxtu wu nekk taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ci daara ji ba gone yi ku ci gis sa doom gis ko bu mu rafet rafle wut loola sante ko waa dëkk bu baax ndax ñoo def waxtu wu nekk fukki fan ak juróom yu ne ñu ñëw ci daara ji génn yëreetu tànk yi fóot ko ba mu set ñu jox leen ko kon loolo moo waral Baye Serigne nee na seenu cant lott na ci seenu fay itam lott na ci waaye mi mi ngi leen bàyyi yàlla mi xam ne jeexalu dara tëliwu dara mu fay leen boppam mu leen xamal na ni leen ndaa bëgg waa dëkk bépp yëg ni képp ku yeewoo ci daara ji di góor ci ci dëkk bi di góor jàppal ne yaay baayu tu tànki ku fi yeewoo di jigéen jàppal ne yaay waay juru tu tànki moo waral ñaare ndax ku ne xam na ne yor xale metti na te xale yi bi lim bi yokkoo am nañ melawun yor loolu ëmp ñu ngi dëkk ci ñu ngi dugg ci dëkk bi di wax lu warut mbaa ñuy def lu warut waaye bu kenn ku ne yëgee ni kenn ci sama njaboot moo tooñ yaakaar naa tooñ nga mën naa oyof ñu xam ne ñun ñoo ko seq ñun ñëpp ñoo seq njaboot gi te waajur yi leen fi indi lu baax rek tax ñu indi leen fi kon yéen yi leen dalal faw ñuy muñ te xam ni luy jeex ndax daara joo xam biñ ko sosee ak léegi ci juróom-ñaari at rek ci weeru olof lay door mat ndax weer tubaab ñaar fukki gone ak benn sunu borom mi dara taw dimbali na leen ba fii la seen alxuraan mokke ba fi lañ bind kaamil bañ jëbbal leen seen waajur ñu des ci biir daara ji moo desaat ñaar fukk ak benn yoo xam ni ñu ngi ci biir daara ji ñenn ñi seen ëllëg noppi la ñenn ñu noppeegun ñii dañoo toll ci beq ñii toll ci bind kaamil waaye lim boobu na fi kon juróom-ñett fukki gone ak benn ak ñetti jigéen fii may waxee ñooy yeewoo ci daara ji ku ne xam ne lim boobu mbokk di ay takk ca mag amul fukki at juróom kon ñooy ay xale lañ te xale nag baaxoo na fo ak dugg ci lu mu warut dugg waaye boobaa yow mi ñu yow jàpp ko sa doom ji ci biir kër gi rek ba lu la def lu ne jàpp na sama njaboot ma ko def boobaa danga nga dimbali sëriñ daara ba ndax ñun yii rek la ñu liggéeyal. wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di Ahmed Dieng. mi kilifa. jataay bi di kilifa njaboot gi ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turam moom mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mor Mandaw Dieng waaye di leen nuyu ci turu sëriñ Mbacke mi nga xam ni mooy jëwriñu daaray alquran ji nga xam ni moom la sii di doon wax ba wax lim bii nga xam ni ñoo fi wattoo alquran ñu wax ni ñu ngi jiital seenum nuyoo ak seenub siyaar ci sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kullu murit ak mboolem njabootuk diine gi ne ci réew mi yëpp ak mboolem njabootuk yoonu murit yëpp bàyyiwuñu kenn waaye ñu ngi ci nuyu tamit sëñ Abdou Latif Jenn mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Issa da ci nuyuwaale mboolem njabootam te suñ ko tuddee mel na ni tudd nañu seex yi aju ci yoon wi yëpp ginnaaw bu loolu jàllee sëriñ mi waxan ni dafa woote woon yëgle woon bis bi kilifa yi ak mbooloo mi wu wuyoosi ko noo xam ni wuyi gi kawe na njortam sedd na xolam kon mu bëggan leen a tudd bañ xam ni kenn ku ci na ci ñoom gis na la yëg na la te xam na ni agsi nga bu dee délégation la bu dee dëkk la bu dee société la wala lu mën a doon mu xam ni yëg na ni ñëw nga te ni nga ci ñëwee it xam na ko te yëg na ko te jàpp na ko. résultat boobu nag am ci diirub juróom-ñaari at yi te sañ si di wax ko léegi ñaar fukk ak nangam yu fi génne ak ñaar fukk ak nangam yu fi nekk di war a mottali daf caa bokk nag euh, euh, benn taxsiis boo xam ne moo ci am ren du loo xam ne lii. xaas la yoo xam ne ji euh, nu dollee ko sant yàlla bu baax a baax a baax loolu mooy lan ñi fi doon jàngi di ay tut tànk ñu ci gën a bari aw ay ay dongo yu góor lañu waaye amoon na ay dongo yu jigéen yu ca bokk dongo yu jigéen yooyu ca bokk nag am ca boo xam ne bii ren jii moom daf cee fisal ndam lu rëy lu rëy rëy muy bu ñuy diglu dongo yi di leen diglu dañ ko doon diglu moom it ñu diglu ko mu doon tari alxuraan tari boobee nag mooy soxna sii ngeen gis mu toog tey ci sama euh, ndeyjoor di soxna si toog tudd soxna Aida Leye euh, dëkk belli gii gàddaayub dëkkam ñëw fii ngir alxuraan nekkoon feek moromi tut tànkam yu jigéen waaye moom pastéefam ak dogoom ak bëggam lu baax ak bokkam mi far ko ci mu ànd ak siidi ba tey suñu borom may ko mu bokk ci ñi doon tare tey donte le alxuraanam des na dana fi toogaat ba àggale ko bu baax a baax bu wér wér ba beqe ba bind kaamil kon tey sargal na jataay bi siggal na jataay bi siggal na daara ji siggal na siiri siggal na askan wi dañoo wax ni thème bi ñu sàkku ci man pour ma waxtaanee ko mooy alfiqhu wa cheikhul xadim mu def loo xam ni mënee su koo waxtaane ci lu tàmbalee ci fii nu toog ba jant bi sox wala sax mënee su koo waxtaane ci benn jataay kon da ngay tënk rek am loo ah ñu jàpp ko xam ne jataay bi moo laaj moo moo moo moo demee noonu ah sunu boroom ci gàttal dafa wax ni li tax ma indi leen fi mooy ngeen jaamu ma wa maa xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ibaada googu nag dara da koo mënta sontal te fiq fiq saytuwu ko faw fiq moo koy saytu lu ko moy dafay nekk xabaan mansuura band bu ñuy wesaare lay doon ndax jëf lay doon jooxee du suñu fiyo fenn ngir waajal nag ibaada googu ak màggaayam ak réyaayam ci sunu borom ak gëddëgam fa am tax na di ko sunu borom di defal li jihaad bi am am solo nga xam ni ay bakkan da ciy dem deret di ci tuuru alal di ciy dem ju baree baree bare bare ak i coono sunu borom digge ci lu ne dig leen ci lu baree baree baree bare ci jihaad lu laaj alal laaj ay bakkan laaj ñaq ngir lan ngir defal tamhiid ibaada googu mu bëgg ci jàmm ci jaamu yàlla yi mu mën a am mu mën a nekk ba mu ko defee lam leen ci digoon rëy rëy goo xam ni gëm guñu gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak gëm guñu gëm yàlla tax na amatuñ benn soxla ci ludul kenn ku ne ngir yoowoo loolu sa bakkan des ci ngir yoowoo loolu sa alal sa alal des ci xataa eh, ña nga xam ne sax benn ci ñoom dañ doon am ay gàllankoor doon nañ fipp ngir la am am ngant ñu ne faawu daal liñ ci dégg moom ñu koo muñ il faut ñu jihaad ba ci ku ñu wax ku mel ni Omar ibn al-Jumuh li mu xëccoo ak njabootam di ko téye mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko loo bëgg mu ni ko dem ci jihaad bi mu ni ko soox bi nag mu ni ko damaa bëgg a diri soox bi ca àjjana yonent bi ni njaboot gi bàyyi leen ku mu dem yàlla dogal ba mu demee it la mu doon ñaan am na ko fa la bakkanam des waaye ci biir li lay xamal ni fiq moo ñoroon suñu borom ci jamono yooyu mooy ñoom ñëpp dañoo buur bëgg a dem suñu borom ni leen déedéet du noonu nag fenn fu ne ña fay jóge na ca am som boo xam ni dañu dem jàngi xam-xam maa kaana al muminuuna li yanfiroo kaafatan falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diin wala yundiru qawmahum idaa rajahuu laallahum yaxdaruun yonent bi leen déedéet nag ngir ngeen jeex tàkk ci xare yi wala ngeen xare ji ba ñëw doon góor yàlla yi kese yu jaamu yàlla te du tege ci xam-xam xam-xamu fiq taxul taxul yàllaa jóg kon na am ci yéen ñu gox bu ne ña jóge na ca am ñu wàcc ku dem jàngi xam-xam xam-xamu fiq bi ñuy jaamoo yàlla ndax moo ñor yàlla bu ko defee bun demee ba ñu doon gàllankoor jaamu yàlla jeex jaamu jaamu gi yàlla mën koo amee ni mu ko bëggee saxaaba yi daal di tënku ci loolu ñii ñii tafu ci yonent bi di jël ci moom xam ñuy jaamoo yàlla ba na ko ci xam di ko def ci ñeneen ñeneen ñi di dem di xare ji pour def tamxiir rek ndax bu demee ba gàllankoor yooyu tee mën a jaamu yàlla am jaamu yàlla gi mën a mel ni ko yàlla bëggee ndax nit ki su fekkee dafay jaamu yàlla te melul na ko yàlla bëggee e su boobaa day tax li jaamu yàlla maye du ko am jaamu yàlla al ajru wa rida wa sawaaba lay maye su ko defee nag bu fekkee nit ki li muy def bari na lool waaye tegewul ci fiq bu leer coono kese lay doon boo xam ne du suñu borom Euh, buy fay ña jubal kooka du ca bokk aywa léegi saxaaba yi nag biñ demee ñiy jàngi xam-xam ñiy dem ci jihaad bi eh, fekk na booba ñeenti kuréel moo am mooy ñi gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak moom ñëw madina wax laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah bëgg a laxasaayu jaamu yàlla am ñu ni déedéet duñ ko fi jaamu ñooña mooy mushrikuuna yi mooy ñi nga xay gëmuñu woon yàlla waaye gëmën nañ leneen lu ñuy jaamu teg ko fi seen kanam bi dëgg ñëwee nag ñi soto jote wax laa ilaha illallah bëgg a jaamu dëgg su dendee ak neen daf koy nasaxal loolu arrangé wu leen moo tax léegi ñu ne ñoom loolu du mën a nekk kenn du fi nekk di fi mën a feccewu islam ñu xës wax laa ilaha illallah duñ ko fi jaamoo moo tax mu ne walaw karaha mushrikuun ndax suñu borom moo ne bal naqsibu bil aqaal al baatili fa yadmaguhu fa idaa huwa zaahiqun wax ni dëgg bu dendeek neen daf koy mëdd ñu xam ne ci neen lañ nekk te dëgg ñëw na ñu ne laa ilaha illallah jibe na ca màkk ñëw fi waaye nag al ibada du am parce que day feeñal suñu tappale benn kuréel bi noonu lañ meloon mooy ñi amoon lu ñu nekkoon te loola du dëgg dëgg fekk si lañ ñu ne kenn dafa manifesté wu dëgg ah, am ñeneen ñu ni ñu waxagul laa ilaha illallah bu mu fi jib bu mu fi jib mooy suñu borom di wax ni yuriduuna li yutfi'u nuura llaahi bi afwaahihim wallaahu mutimmu nuurahu walaw kariha al kaafiruun ñooñu mooy kaafiroon yi ñi nga xëy ñëpp ak musrikuuna yi ñoom gëmuñu dara ñooñu nag li doonoon seen liggéey moom mooy laa ilaaha illallaah ci boppam dañ moom bu mu bu mu law waaw kalimatullaahi lañ wax ni bu mu nekk al ulya bu ko kenn tudd yonent bi jàng ko te ñaar ñooñu ñëpp jàng boot nag ñi ko jot a wax bëgg a jaamu ba pare ñii taxaw ni kenn du ko fi waxeeti kenn du fi jaamu kon li tax yàlla indi fi nit ñi booba am na problème mënugul nekk ah ci loolu nag suñu boroom ni nag daal di diggee jihaat nag ni nag kaay leen nag ginnaaw maa moom lépp moom ñëpp léegi kaay leen ngeen jihaat innahu eh, man qaatala fawaaqa naaqatin faqad wajabat lahul janna ñu leen képp ku taxaw ci toolu jihaat luy tolloog bi nga rattee gileem gi ak ba ngay yóotu gee warlu naa la ajjana soo sa alal loo ca def lu mu tuut tuut jéego boo ci seqi effort boo def bu naqari ab yéefar rek dindal la ko aw yiw ba bind la ko aw yiw yiwu suñ borom nag bu ko waxee day gàtt ci boo ko déggee nii waaye bu ñu la ko tegaloon fii nga di ko wër fi tàmbalee ba fam yam di nga ko dox juróom-ñaar fukki at wenn yiw yi lu ci gën a tuuti nag laa wax mu ne nag lu ci waaye def lu mu tuuti su dinaa la ci bindal aw yiw ah léegi nag eh, ñu dem ñoom nag ca loola ndekete wóote loola la muy metti metti la muy am am njariñ li yàlla defal tam tamit bëgg mu mën a nekk mooy liberté am ñu def dénoncement yooyu ba liberté am bañ mën a jaamu yàlla waaye la ko ca gënuñu rek mooy jaamu ga bu ñu ca yeggee na dëppoog ak jaamu gu tege ci dëgg na ko feq saytu bu ñu déggee ñu naa feq feq feq rek ah da nga naa waa feq moom mooy lan kon dañ ci wax dañ wax ñetti masala rek bu ñu ko waxee ñu xam ni feq mooy mooy maye loolu lu mel ni boo duggoon ci jàkka ji tey fekk nga yeex a dugg fekk ñuy la xaamal takkusaan te julee goo woon tisbaar nooy def feq loolu lay jariñ nooy def problème am na léegi nooy def ñaari mbir xew mooy benn am nañu ni bu la neexee nga kàbbar ca ginnaaw ilimaan yéene sa tisbaar julli ko ca ginnaaw takkusaanam farata mën naa yóbbaale morom hmm. am ñu wax loolu waaye nag boo la jëfandikoo ngir euh, am xam nga luñ la wax maanaam dangay kàbbar ànd ak moom takkusaan ja bam mu noppi nga julli sa tisbaar ba noppi baamtuwaat takkusaan ndax dañoo war a toftaloo moo tax hmm. noonu ngay def bu ko defee ñu la gi nga àndu nag ilimaan nag ñu ne waa nga la la yeex na loola nag am na ci kon bi sax mooy bi ma mujj a wax ndax bu sañoo sañoo beru fee nag di julli moom doo ko def doo naafil doo def naa li xamal nañu iman léegi da ngay ànd ak moom julli léegi nga maam takkusaan ba noppi julli sa tisbaar boo noppee baamtuwaat takkusaan ga nga àndoon ak iman nga def ko muy naafil ci xam ngoo li muy sew sew nga dugg ci jàkka ji képp problème am léegi nag ba ci topp ci masa masala moomu mooy lu mel ni sax wi mel ni sax wi nga julli rek maanaa léegi jekki saa rek daal di sëlmal fekk ñeent rakkaa la war doon ñett nga am nga ne asalaamaaleykum ni ñokket dox ñaari jéego saxel na ci yar nooy def nooy def léegi fekk moo la naan ah yàggagul dell fa nga toogoon nga delluwaat toog toog bu jekk daal ni ñokket jóg indi beneen rakkaa boo noppee taayee sëlmal ni asalaamaaleykum sujjóot baada salaam mu jeex da ngay dégg loolu waaw léegi bu ko defee nag noonu la léegi ba tey nga topp ci ginnaaw ilimaan muy jàng ngeen di julli muy julli tisbaar wala takkusaan ba waaw eh, ay nag bu defee fekkantee ne gee muy jàng njàngum biral wala timis luñ la wax luñ la wax danga naan tekk di ko déglu comme mi ngi jàng ba mu yeggal su yeggalee am na ñun dañ naan tekk bu fatiha ji yeggee a espace may tuuti nga nga gaaw nganam nganam nganam nganam jàng sa fatiha su fekkee du imam buy def loola bu daanee la dar saar wa doo mën a jàng yow concentré wu ni tekk léegi loo mën a jàng su boobaa su dee jullit yellu nag su ngeen te jógee taxaw mu war la mi ngi ci fatiha am nekkal ci sa fatiha bu sa fatiha jeexee dalalu saar ba sa saar jeexee ne tekk di ko déglu waaye nag boo ci mën a dal fu imaam jeexale mooy sa jeexal yow bu la jëkkee jeexal fu mu rukkoo xee rukkoo xal ni moom bul fa kon bul continuer ayu bi si des bi si des moo di kenn du weddi sa bopp nee na kenn du weddi sa bopp daaw daaw biñ fi teewee biñ fi teewee fii jëluma woon kaddu nee na jëlul woon kàddu de. moo bàyyi woon lépp ci ci Lamtooro nee na dafa bàyyi woon lépp ci lam Lamtooro si doomu maam Abdoul Aziz si da baax lépp kàddoom ak yëpp moom la ko joxoon. loolu lay defaat nag. nee na nag loolu nga xam ni moom la defoon daaw moom lay defaat. dama ko doon ubbil rek. nee na. dañ doon wut ku nu ubbil rek. daf ko doon ubbil rek. waaye lépp ngi ci loxoom. waaye lépp mi ngi ci loxoom. di gërëm nag ñëpp. ñu ngi gërëm mboolem ku fi teew moo xam kan la wala dëkk la yal na yàlla faj aajo yëpp jaayi seydina muhammad sallallahu alayhi wa ki doon conférence dama ne waxtaanam mënoon nañ ko bàyyi mu dem kenn bañ fi jël kàddu xam ngeen lu tax mag ñi dañ ñu fàggul lu rëy jële ko ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan bi nga xam ne moo ñu gindi kan la ko yàlla teg ci loxoom du sayduna muhammad yaa ayyuha rusul balligh ma unzila ilayka waaye yemul foofu mu ne ko sallallahu alayhi wa sallam wa in tafal ne ko bul mel ni rek lamtooro mu toog yor micro di wax te la mu wax yépp bu génne du ci jëfe dara maam Cheikh Ahmad Bamba santu ko njabootam mbokkam ba santu ko njabootam kon góor gi li mu ñu doon waxtaana léegi ñépp a ngi naan ëskay ndax bu ñu génnee ëskay gooju dañ ko jëfe foofu la mbir mi de ka wax bàyyi fi bind dem bàyyi ñoo ko moom muy njariñ nag mu ne yéen daal xam nga leen lu ma leen yéene udxuluha bi salaamin amin waaye loolu nag la koy maye mooy nga jëfe te jëfe seen santaane mooy jëfe yonent bi ndax ñoom seen lépp sayduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam lu rëy lii sama bàyyi daan na mu wax ne cheikh alhaaji Abdou Aziz fu yiw ne si demal fàggu ci ko dafa mag ñu daje dem ci suñu baay Abdul Xaadir Mbàkki radiyallahu ne ko dañu bëggoon Cheikh Alhaaji Abdou Aziz sa mbokk ma rus na la te dañ ko bëgg a sakkanal bëgg mu noppalu ñu def delegation bu rëy daje magu Dakar yeeg ñëpp jubal tuuba mu recevoir leen ba ñu ñëwee toog ak moom ne ko daal dañ bëggoon comme Cheikh Al Hadj Abbas daf la rus wax nañ dañu bëggoon nga wax ko mu noppalu góor gi ne laa ilaha illallah kooku bu noppee àdduna bi tukki sëñ Abdou Khadre kon gis ngeen mag ñi noonu lañ ànde woon góor gi daan na ma wax ne si ñaan gi ma yëg ne suñu borom yàlla defal na ma ko bokk na ci ñaan yi ma yàlla nangul sama baay Cheikh Coro Mbacke moo ma ko def ci man te boobu nekkaguma xalifa nekk ndaw xam nga lu mu ko wax hmm. ne ko inna farihna bil ityaani azizi lana abdal azizi fatal fityaani nan ko fiha zamanun chiplun gaynde bu ndaw nga def fi nga ne Abdul Aziz waaye yëkkoonu ba ëllëg dinañ xam yaay kan Abdul Aziz ñun de lépp lu ñu bëgg ci diine ji yow la ko yàlla teg ci loxo kon mag ñi noonu la ñu ànde woon yàlla nañu yàlla saxal ci lii ah di seedal sëriñ Mbàkke Jeng ni xamal ko ni mbooloo mi sëriñ si ak taalibe yi ak bokk jullit yi ñëpp am nañ ci moom ak cofeel ndax jëf ju tedd ji ndax lii jëf la joo xam ne yàlla moo ko moom ak yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax biñ ko fi sancee ak léegi lu mat ñaar fukki gone ak nangam mokkal ci ñaar fukk mokkal na ci yoon wi loolu ndam la ci diini ndam la ci lislaam bi waaye ndam la ci askan wii nga xam ne ci la la yàlla boole ndax sëriñ Mor ma ndaw jëng ay jaaruwaayam ku dégg histoire dégg ko nitug alxuraan la woon nitug sunna la woon koo xam ni jaamukat yàlla bu mag a mag a mag la woon ci réew mi ah, bu ñu setantalee tuuti xam ni arab yi am nañu lu ñu wax xar wa an yaxsul fata xaswa walidihi nit su fekkee la nga xam ne ay baayam ak maamam ci lañ nekkoon mu dundalaat ko ba loola feeñaat loola du kiimaan ci moom waaye njàmbaar la ci moom ndax ku toppatoo li nga li nga war a toppatoo am na ki toppatoowul li war a toppatoo kon na yàgg sa mbokk yi nga xam ni ñoom ngeen fi dëkkal muy alxaaji Bada Dieng ñoom ak waa dëkk bi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax kii gannaaw yàlla may buntam ci yoonu Serigne Touba maak samay rakk kon nag lépp loo xam ne waaye defal na ko ko yàlla nga ko defal yonante bi nga ko defal waaye nun ñii nga ko defal ndax sunu waajur lañ ko tuddee jox ko ko mu yar ko ñu fekke ak nekkam ci biir yar ba dara yàquwu ca lépp nekk siraatal mustaqim lépp nekk diini lépp nekk ak taalu bi yàqu ci dara ànd ak muñ gu mat sëkk ak jub gu mat sëkk goo xam ni duñ ko wax ngir dara lu lillaahi wa li rasulihi sallallahu alayhi kenn mësul gis ci moom nga topp ab tànkam gis ca lenn lu yàlla tere wala lu yonante bi tere ci diine wala ci ànd walla ci dëkk loola defe naa bu lii feeñee ci moom mu ànd ko ak ay bokkam di waa dëkk bi ak waa tund wi ak suñ mbokki ahlu diine yi loolu ndam la ci moom waaye mbégte la ci noonu ndax ku sañoon koo yar mu mel nii mu mel di def luy dundal diine te doo dox ab tànkam fekk ca lu ñuy tere lu ñu lu yàlla tere nit ki mën nay fab alalam di ko joxe ci diine waaye aw nam dana tax mu soof lool nit ki mën a fab alalam di ko def ci ci bi waaye aw nam tax mu soof lool loolu lépp nag dara amu ci kon sëriñ di Dieng yow mi nga xam ne yow la sa waajur wóolu batale la donga yi nekk ca Touba léeg mu génn ab diir bàyyi la ak donga yi du kiwoo fanaanoo àll demoo ci jàng demoo ci xew-xew tënku ci loolu na nga xam ne loolu defaloo ko kenn ku dul yàlla ak yonent bi di santit ki nga xam ne mooy njiital réew mi ndax yàgg nañoo toog fii di ñaan courant bi suñu borom tabaraka wa taala andi ko leer na sëriñ mii leer na bokk jullit ak seex sii fi toog ak kilifa yu baax yi indi nañ ko ñëw na loolu sant yàlla lañ ciy def waaye nag sant ki nga xam ne ci moom la ko yaara jaale muy président Macky Sall ak kilifa ya doon toppatoo loola ba àgg ci moom añ ña ko doon dox ñëpp ndax courant doon na loo xam ne ndimbal la ci kuy jàmm yàlla ndimbal la ci ku bëgg a dund lislaam ndax ya ca aju yëpp ku xam ku ne xam nga ko ndigalal sëriñ bi nag mooy li fi ñuy wax muy sëriñ Abdou Latif am na lu ñu dénkoon wax ñu ko bu ñu àggee nañ gën a boole suñu bopp gën a tënku ci lislaam gën a tënk ci ak toolu bi gën a tënku ci lu baax ndax jéem lu baax moo waral lii ndax investissement yi nekk fii lenn lu ciy mayeb dërëm amul lu ñuy dolli di ci fere moo am kon ki ko def yàlla rek a tax mu di ko def ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa daara ji du daaray tarixa képp ku bëgg a ci lislaam bëgg a dund ci diine sa daara la boo fi indee sa doom danañ ko jàngal ba mu mokkal bàyyi ko ci pas-pasam mu dellu fa fay jubluwaayam loolu waxtu wane dañ koy leeral ndax loolu moo ko tax a jóg kon sëriñ Mbacke Dieng mii ñu ngi ñaan mook bokkam yi mu fi fekki di ji Badaak magam yi fi nekk ak doomi ndijaayam yeeg ñoom ñëpp yàlla may leen kartan doon leen xéewal ba lañ yéen ci lislaam mu mën a dox bu baax courant bi jàmbaar la ñëw lañ sant leen gërëm leen ci waaye soxla nañ ndolleen leen mooy defar ñu yoonu fii ngaay ba dikk bi gën a mën a yomb ndax fii ay investissement fii fa am defe naa baax na ci diine waaye baax na ci état ndax buñ nee diw de agressé niiw na nga génn ko muy doomi daara buñ nee diw dafa weñale nit néew na nga topp ko muy doomi daara te loola ndaw ñi ku ne gis na seeni taxawaay ni mel ci jamono ñi ko lu bari na média yaa ngi koy wane ñëpp koy gisandoo amul kenn ku mu ump ku mënta liir nit ñaa ngi koy dégg di la ko nettali ci xibaar yi dañoo rey diw dañoo dagg ab tànkam dañoo àgg ci diw te am juróom-ñetti at jëfin yu ñaaw yooyu yëpp di ay ay ay faaxis yoo xam ni yu ñaaw la ñaaw la lool néew na doomi daara ju jàng alxuraanu karim ba mokkal ñu yar la nga di ko def defe naa loolu nag bu ngeen dimbalee waa diineet dimbaleen ki nga xam ne ñoo jiite réew mi ñoom itam rafet na baax na ñu xam seeni taxawaay fii ci njaboot yi ak seeni doxalin gannaaw bu ko yàlla xamee ba noppi kon kii yor réew mi di Macky sàll ñu ngi ñaan mu dimbali ñu ci aw yoon woo xam ni dana ñëw fii ndax ñi fi nekk liñ man lépp def nañ ko te ñu ngi nas yeneen i pexe yi dolli ci li liñ nekkoon loo xam ne sëriñ mi waxtaane na ko man ban fas ko te loola ma nga ci yàlla ko yàlla àggale ci dolli fi travaux boo xam ni da koy génn ci alali boppam ngir mën a gën a servi ndox ba dongay gën a mën a jëfandiku loolu àggee na ma ko man mi nga xam ne may kilifaam ngeen ñaan mu àgg ci jàmm ak salaam loolu gën naa woon état ni moom itam war warteefam ci lii am war na ci am aw doxin woo xam ne bu bokkul ak wii mu yokk loxoom ci njaboot gi yokk loxoom ci population bi nga xam ne ñoo dëkk fii ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jottali nu yëpp Cheikh Abdou Latif ak Cheikh Mountakha mm-hmm. di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mm-hmm. sun njaboot yi sun mbokk yi sun waajur yi dëkk Tiwaawan di sun kilifa yi yàlla ñoom itam may leen wér yàggale xalifa ba ci seen kanam ak rakkam ak mboolem jullit yëpp ñoo ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp di sant suñ kilifa yi ñu àndal di waa kër Cheikh Issa Diène sëriñ Abdou Latif sëriñ Cheikh Diène mii ak sëriñ Bachir ñoom ñëpp ñu ngi nii sëriñ Naar sëriñ Sidi moom sëriñ Soyibu sëriñ Cheikh moom sëriñ Youssou njabooti sëriñ Mbacke jenn sët yeeg ñëpp ñu ngi fii ñu kon sëriñ Bachir moom sëriñ Mbacke Mariam mi ngi nii ak rakkam kon na ngeen xam ne ne ku ñëwul ku ne ak mag moo la jàpp waaye ñoom ñëpp ñu mën a ñëw danañ ñëw te ànd ak Serigne Mbacké bis bi ba bis bi jeex wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.